faut qu'on soit transparent quand même. Il faudrait qu'il y ait une liste de décharges à chacun, donc, si on lui donne donc euh, somme telle, qu'il puisse quand même signer euh, et montrer qu'il l'a reçu. Parce que donc, euh, ça pourrait servir donc, à l'avenir de pièce comptable donc, au Voilà, donc. ceci dit, ce que je voudrais, c'est vous remercier vous tous et remercier le bon Dieu avant tout. Parce que donc pour toute autre œuvre humaine, nous en tant qu'humains, on ne peut que, comme disent les Wolofs, am sunu pas-pas ak sunu Mais en définitive, celui qui décide, c'est Dieu, notre le Tout-Puissant. Donc s'il nous a permis aujourd'hui d'avoir des ambitions, d'avoir un projet et de mener à terme ce projet, étant entendu que le vrai combat pour nous, c'est que donc l'amélioration de nos conditions de travail et donc, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh la le fait que donc la fonction publique locale donc, puisse être une réalité. Donc, le jour où on aura donc ça, le jour où on aura donc une association donc, qui euh, fédère tous les secteurs municipaux, qui se rencontrent en temps réel, de manière périodique, qui se connaissent surtout qui puissent partager l'expérience, qui puissent partager des ateliers formation et tout. C'est ce jour-là que nous pourrons dire que donc, notre objectif est mais quand même nous avons franchi un grand pas. Par rapport donc à la responsabilité donc, qui vient d'être mise donc, nos épaules en tant que membres du bureau exécutif, je voudrais personnellement dire, en ma qualité maintenant donc, de président de l'association, que c'est avec opposition que je l'ai accepté. Je voudrais quand préciser que lorsqu'il s'était agi de proposer donc un bureau consensuel, il pas forcément d'accord pour être président. Par contre, comme disent les Wolof, Yakar la fort. Si les gens me proposent, parce qu'il y a un préjugé favorable par rapport à ce qui a été déjà fait, Monumata Yakar, donc je l'ai accepté, mais il est bien de préciser que je n'avais rien demandé. Tout ce que j'ai demandé, c'est que l'association puisse tenir sur pied et que ça puisse fonctionner donc, euh, pour l'éternité. Donc euh, ma personne, ce n'est pas important. Je me considère comme un, un pion de l'échiquier. Et je voudrais que chacun de nous se considère comme tel. Que chacun de nous considère que sa pierre à l'édifice est primordial et donc euh, qu'il euh, euh, se retrousse les manches, que nous nous retroussions les manches ensemble pour que les défis futurs, nous puissions les relever. Nous allons les relever ensemble, sinon ils ne seront pas relevés. Et j'ai confiance en chacun de nous. Et je voudrais aussi dire que nous voudrions que le fonctionnement de ce bureau soit le plus inclusif possible. Que ce soit le bureau, que ce soit le comité directeur, que ce soit l'Assemblée générale. On a mis une clause qui est très importante. Je ne sais pas si c'est standard ou pas, mais si le président tarde à convoquer une assemblée générale parce que c'est nécessaire et que un tiers des membres de cette assemblée générale sont d'accord pour convoquer des bureaux, pardon, je crois que donc c'est normal. Il faudra aussi donc que chacun ait un œil sur tout ce qu'on fait. En général, c'est sur les finances que tout le monde a un œil. Mais ça doit être transversal. Nous devons avoir un œil sur tout. C'est pourquoi aussi donc euh, le fait que donc les rapports euh, des assemblées générales précédentes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau donc, des secrétariats généraux, au niveau de la trésorerie, au niveau des commissions, c'est primordial. Donc euh, euh, voilà ce que je voulais dire. Euh, je ne voudrais pas être très long, parce que donc, sinon donc, ce serait des extrapolations et ça devient confus dans ma tête. Mais je voudrais quand même remercier ceux-là qui nous ont accompagnés. Parce que J'étais convaincu que nous, la, le premier défi qu'il fallait relever, c'est notre autonomie. Par contre, il fallait respecter les formes. Notre autonomie, c'est-à-dire qu'on ne tienne pas à ce que notre budget ñu yaakaar ko ci keneen parce que suñ ko yaakaar ci keneen kooku dinañu conditionné duñu ci mën dara donc bravo parce que aujourd'hui le bilan qu'a fait Guimé a confirmé que nous pouvions financer notre Assemblée générale. Nous sommes à plus de cent 000 et nos dépenses n'ont pas atteint 700 000. Donc vous avez financé l'Assemblée générale. Donc c'est un gage de dignité déjà et d'autonomie. Mais il fallait respecter les formes. woon nañ ministère d'abord balaa ñu koy woo sax dañ koo informé woon ci idée bi waxoon ko bëgg nañ mu recevoir yàlla dogal ko mais ba ñu jógaatee pour daje informé waat nañ ko informer donc tous ceux qui sont liés aux collectivités locales fi ñu koy defee on avait informé celui qui représente le chef de l'État le gouverneur avec ampliation du préfet donc comme suñu jaar wàcce de la même manière ñi nga xamee on les a invités et qui sont donc nos pairs secrétaires municipaux de quelle poche du Sénégal qui sont au conscients de la dynamique, mais qui ne sont pas encore venus, nous prenons acte, mais nous disons que donc, les portes sont totalement ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Je crois que donc chacun de nous est d'accord avec Je lance donc un appel aux secrétaires municipaux et secrétaires généraux de toutes les régions du département à faire sien ou sienne cette association kenn ëppale ci wu ci kenn kenn gënu cee yey kenn ñun ñii nga xamee ne ñun lañu fal te bëgg naa donc su ma jeexalee donc ñun donc tous les ñëw au moins qu'on fasse une photo de famille mais ce qui n'a pas pas empêché aussi donc à ce qu'il y donc euh, une photo donc euh, de famille de tous ceux qui sont là je dois le pour le faire parce qu'il faut immortaliser ça. si des gens donc, euh, qui sont plus expérimentés que nous, qui ont euh, euh, traversé plus, plus d'années que nous, comme le doyen Aïdara qui nous a dit donc, depuis les années ou bien la fin des années il est temps donc, les collectivités locales et qu'il dit que cette rencontre est inédite. C'est vrai, c'est inédit. Par contre, là où je veux qu'on ait un résultat inédit, c'est faire de sorte que l'association marche comme il faut et les aspirations qui sont les nôtres soient satisfaites. Voilà ce que je voulais dire. Je encore une fois di ñaan yàlla rek ñi nga xamee ni ñoo fi ñëw kenn ku nekk ci barke weeru koor nga dellu fa nga jóge ci jàmm ak salaam te yàlla gën a wéral say jëf may la wér gu yaram aar sa njaboot defal lii sëñ Tuubaa di wax ci xasidaam ni sànqatul bàyyi maanaam njëriñ àdduna ak àllaaxira je ne peux pas terminer sans remercier les autorités de la ville de Thiès. Séis Matine, secrétaire municipal de la commune d'Ongoundiane, président donc euh, de l'ancien comité de pilotage euh, euh, qui a donc euh, tenu les travaux de préparation de l'Assemblée générale pour la mise sur pied de l'association des secrétaires municipaux et généraux des collectivités territoriales Mais Sénégal. lan moo waral kuréel gi ngeen xalaat ko ba taxawal ko fii ci tey Thiès. voilà donc euh, aujourd'hui donc euh, li tax euh, ñu xalaatoon euh, amal ndaje bi pour euh, samp association bi regroupe secteurs municipaux yi ak secteurs généraux yi du dara lu dul bëgg nekk benn bëgg xàccendoo dóorandoo pour que sas wi nga xamee ni dañ ñu coo sas te nekkul sas wu tuuti ndax coordonner administration collectivité locale nekkul lu yomb surtout que donc da ngay bëgg a euh, euh, coordonner loo xamee ni donc euh, dafa laal donc ci secteur yëpp maanaam donc dafa xaw a transversal loolu nag su amee booloo man di gisee xamante di changer échanger expérience di partager donc ay atelier donc euh, de formation euh, loolu dafa nekk loo xamee ne kii na nekk aussi donc interlocuteur donc euh, état saa boo xamee ni ay décisions yu concerné le développement ou le devenir maanaam yokkute donc collectivité wala donc gox-goxaat yi ci Sénégal loolu dafa nekkoon loo xamee ni urgence sax laa koy tuddee wandam loo xamee ni mënul woon a ñàkk li tax nag ñu amal ko fii ci Thiès ku ne xam na ni Sénégal avec centralisation maanaam li nga xamee ne ñun ci suñu bopp jàpp nañ ne lu ne su baaxee wala donc su naree baax yaakaar na ne Dakar rek la mën a baaxee loolu euh, comité de pilotage bi nga xamee ni liggéey nañ ci depuis le mois de septembre demoon nañ ba dañoo gëm ni Sénégal donc lépp loo xamee ni dañ ko fee waratee taxawal wala ñu war ko fee liggéey amul benn ruqu Sénégal boo xamee ni yeyoowul wala mënul taawu liggéey boobu vu que donc donc euh, ville de Thiès dafa nekk foo xamee ni donc euh, dafa nekk euh, célébé yoon comme ni ñu koy waxee ci wolof soriwul donc jéggiwul lool donc naam donc yenn gox yi ci Sénégal wante nekk na foo xamee ni donc dafa diggu doomu te capital bu mag la am histoire am ay autorité municipale je veux dire donc ñi nga xam ne ñoo jiite donc ville bi ubbeeku nanguñoo donc fat loolu donc euh, soo ko boolee donc moo taxoon ñu ni ah donc euh, ville de Thiès vraiment donc mérité ni ñu defee ko fa en tant que koo xamee ni nag donc damaa dëkk ci département bi dama koy euh, sante yàlla wante gërëm le maire Talla la ak administration bi yëpp ak ñi nga xamee ni ñoo di suñu naataango yu nekk ci département bi parce que jàpp nañ ci liggéey bi. loolu daal moo nekkoon li ñu mënoon a wax di sant yàlla ndax liggéey bi nga xamee ni moom la ñu doon def depuis ci suba ñi nga xamee ni ñoo di sunu nawle am nañu ak mat. wante am fulla am fayda xam li ñu bëgg ba liggéey boobu euh, euh, tolloole wuñ ko ak dara ba tax na donc euh, fi mu ne nii liggéey bi nga xam ne moom la ñuy doon def moo di règlement intérieur ak statut yi nga xamee ni comité de pilotage bi def leen ko propose woon defe naa donc jàngat nañ ko donc baat par baat ba ñi nga xamee ne ñoo fi nekk yëpp joxe seen xalaat ba ñu adopté ko ñu sante ko yàlla. li nga xamee ni aussi moo demoon ci bureau bi li ñu njëkk a yàlla mooy. nekkuñu fi di xëccoo nekkuñu fi dinaan damay voté kii di xëcc jëm fekk kii di xëcc jëm la ne ginnaaw nee nañ dañuy tabax tabax boobu nekk na ci bopp nit ñëpp ba tax na donc euh, li nga xamee ni moo euh, li gën a am solo moo di ni nit ñi juboo nañu ci ay nit ñoo xamee ni ñoo ko proposé yombul nag mais donc euh, loolu am nañ audace nit ñi proposé commité de pilotage proposé ñi nga xamee ni ñoo nekkoon aussi donc les délégués dégg nañ proposition yi fi nga xamee ni amoon nañ donc euh, euh, euh, xel mu wuute joxe nañ xel moomu ba tax na donc fi mu ne nii sant nañ yàlla ndax bureau boobu teg nañ ko mu nekk un bureau consensuel boo xamee ni ñëpp donc ñoo ko rafetlu ñuy ñaan yàlla rek yaakaar bañ a tas ñi nga xamee ni ñoom la ñu sas donc ñu jiite wala ñu am ay responsable ci bureau boobu ñan lañ yal na leen yàlla may wér ak tal ba li ñu leen yaakaaree ñu mën koo matale wante aussi di rappeler rek ni du ñoom rek ñoo moom liggéey bi. kenn ku nekk ci association bi da nga nekk mool ci batiment bi maanaam donc na nga jàpp ni donc euh, li nga war a bay ci waar wi donc soo ko bayee defe naa tool wi tool bi yëpp donc dina mën a ñëw euh, joxe résultat yi nga xamee ne moom la ñu euh, seen liggéey déjà am na solo am ngeen xëy na kuréel gi tam day bokk ci li leen di effectivement day tax ba ñu jox ñu gëdd bi ñu ñu war a jox wax naa ko nekkuñu syndicat naam wante nag dañoo bëgg. ginnaaw donc collectivité locale mënul développer te kenn tudduñu wala donc teewuñu wala nekkuñu ci li ñuy nekk donc ci collectivité locale yi kon fépp foo xamee ne dañu décider. donc euh, ci li nga xamee ni moo di euh, euh, développement collectivité locale yi wala lu concerné communes yi ak ak villes yi ci Sénégal wala département yi loolu donc nekk na loo xamee ni ñun dañ koo war di fekkee dañ ñoo war di laaj donc suñu xalaat pour que donc tabax boobu nga xamee ni moo war a jëmale Sénégal kanam mu mën a nekk réalité te ñëpp gis ci seen bopp. mais xëy na au quotidien ñàkkul peut-être ñaare wala ñetti jafe-jafe yu waaw bëri na bëri na jafe-jafe yi nekk na déjà donc euh, secrétaire municipal fonction la mais amagul un statut. moo tax donc globalement ñu fexe ba donc statut euh, de la fonction publique locale nga xamee ni dafa concerner secteur municipal ak ñeneen ak ñeneen nekk loo xamee ni donc euh, euh, lu mënul a ñàkk la c'est vrai donc président joxe na donc ay tegtal mais liggéey ba nga xamee ni moo ci war commencé nañ ko mais ñu ngi ñaan yàlla aussi donc ñu yeggale ko donc ci anam ñi mu gën a gaawee te mu nekk loo xamee ni la muy jur dina nekk suñu yokkute ñun ñëpp. peut-être département ci ëpp teew nañ ci na ñu fi néewul. est-ce que mhm. euh, sànq bi may wax euh, wax naa ni euh, am na ñu fi teewul suñuy naataango lañu suñuy xarit lañu léeg-léeg sax ba tax na ubbeeku lañ def képp koo xamee ni da nga nekk secrétaire municipal jàpp nañ ni yow ak ñun ñoo bokk ndey ak baay. kon dafa am obligation ñu ànd di bokk ndey ak baay effectivement moo tax ñooñu nga xamee ni donc teewuñu tey jii ñu ngi leen di tàllal loxo te wax loolu ni seen place mi ngi fi suñu ñëwee mi ngi fi suñu ñëwul mi ngi fi ñaanuma yàlla loolu wante dama bëgg wax ni rek ñi nga xamee ni ñoo nekk euh, ñi ñëwul tey parce que limat euh, fanweeri département ak euh, ak ñaar ñoo ñëw donc euh, juróomi région ñoo ñëwul donc ci euh, juróom fukk ak ñeent yi ñu am kon ñooñu nga xam ne ñoo des jàpp nañ su kon kenn sax bëri na ñu bàyyi kenn.